kon mbokk yi dama newoon ci langue pulaar balaa may sori damay nuyu di dalal alaaji seeni Bari bi nga xam ni moom mooy président képp koo xam ne day wax mbii mi président pël yi ñi làkk ñe fulbe yi nekk gine ak ci àdduna bi jóge Fuuta Jalon ñoo xam ne seen cosaan Fuuta Jalon la te daal di nekk tamit képp kuy làkk pulaar awa ko tool yi moom alaaji président meede suñu xoolee sant bi bari bi Fuuta théocratique taxawee dafa amoon juróom-ñeenti jàmbaaru yàlla ay ay waliw yu xool ni fépp fu ñu dem dañ doon sonnal li ñuy wax pël ñoom ñu daal oote bokk na ci maamam muy Cerno Ibrahima gu Bari moom moo nekkoon premier almaami Fuuta Jallo ci almaami boobu ñu taxawaloon le Fuuta théocratique am na ñu bëri ñu ñëw fekk si Fuuta théocratique pour xam pour xalaat lan moo tax Fuuta taxawal premier état islamique ci Afrique de l'Ouest te boobu nag boobu am na suñu mag bu nekk fii ñu ñëpp moom la ñuy ko képp koo xam ne juddu Sénégal nga ngay pël mooy Thierno Souleymane Baal moom moo njëkk ñëw Fuuta Jalon taxaw principe yooyu mu définir ci Fuuta Jalon la ko jëlee xam ne nee na képp koo xam ne njiit nga dañ lay tànn te waruñu la donn parce que dafa gis coono bi amoon ci Fuuta Jalon ci affaire donnante mu ne kon nguur kenn waru koo donn waxuma nag bari yi amuñu woon droit nekk ay buur ay jàmbaar lañu woon ñu daldi wax ni ñu daal wax ni képp koo xam ne nekk nga bii nguur jëkk ci nguur gi su ñu gisee sa alal yokku Thierno Souleymane Baal nee na dañ lay wàccee suñ la su wekkee bëggul wàcc ñu xeex ko Thierno Souleymane Baal moo wax loolu fan lu ko jàngee Fuuta Jallo booba ci diggante li ñuy wax pël Fuuta ak pël amul woon benn pël pulaagu rekk amoon pulaagu kese waaye tubaab bi ñëw nu mu def mooy dafa indi ay xeeti xeet ne kii pël jéeri la kii pël fuuta la kii pël toorodo la kii pël fulakundaa la ba dax ni léegi ci biir ñiy làkk pular ñu nekk ñuy xiiroo ak ŋaayoo bañ a nekk benn ñi ngi ñaan suñu njiit alhaji alseyni bari ñu ngi lay ñaan lillahi wa li rasuli nañu fàttaliku li nga xam ne mooy suñu dono mooy lislaam man mooy suñu dono mooy boole askan wi te loolu nag maa ngi jox benn message ñu ñi nekk ñu ñuy oote treizième pénc maanaam ñu nee nañu pël Fuuta yi nekk fii ñoom ñooy treizième pénc lébu lu tax parce que lébu yi li ñu leen xamee mooy ñoom ci xeet yu bëri lañu daal di ñëw fi dakaar sanc fi benn république démocratique première république démocratique seizième xaw ma dix-septième siècle ñu nekk fii lébu yi di nga fa fekk ndóoy di nga fa fekk njaay di nga fa fekk jaw di nga fa fekk façon xeet yu nekk euh, sant yu ne xeet yu ne ñu nangoo nekk ay lébu leçon boobu leçon boobu lañu ñu war a mën a jàng fii ci Sénégal jël loolu exporté ko ci Afrique ndaxte li gën a doy waar mooy ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ñun ñëpp ñu fi nekk ay jullit lañu kon warunoo am ay xiiroo ak ngaayo suñu diggante ba deret di si tuuru mooy li nga xam ne appel de Dakar loolu lay wax appel de Dakar dafa wax ni amul benn waay boo xam ne war nañ ko discriminer ci parce que beneen xeet la beneen sant la di wax suñu mbokk marocain yi ahlan wa sahlan marhaban bikum wallaay metti nañu li leen dal yàlla def na fa benn séisme mu am ñu fa faatu jamaa bi mbokk pël Fuuta yi yépp ñi nga xam ne ñun ak marok suñu cosaan sori na bokk na ci nga xam ni moo nekk moo taxawal li islam bi nekk fii ci Sénégal seen nos relations entre le Maroc et le Sénégal di nuyu nag euh, sama imam imam mbay Niang moom moo nekkoon premier par premier président parti MRDS nekkoon assemblée nationale moom ak président Mamadou Lamine jàlloo ñoom ñoo doon def ay xeex ci assemblée nationale pour lan pour le droit du sol képp koo xam ne ci espace wa nga bokk da nga war a soo nekkee fii juddoo fi sa doom juddoo fi nar fi jàngee da nga war a nekk sénégalais. su fekkente ne mun na am benn nationalité ku ci nekk da nga bëgg jàpp ni yow guinéen nga yow sénégalais nga yow mauritanien nga parce que loolu la tubaab bi tuddee su fekkee loolu nga bëgg li ñu wax mooy képp ku fi juddoo war ngaa mën a nekk sénégalais képp parce que sénégalais bu juddoo Guinée doomam juddoo Guinée guinéen la dañ koy jox këyit mais fii moom Pël Fuuta bu fi juddoo ñu ne la ba jàllo bari non non yow daal étranger nga ko ñun nee nañu appel de Dakar loolu dafa war a deñ léegi nag jërim ma balaa xam naa bëgguma guddal waa ji militaire bi mu may ñëw di ma xool pour mag wàññi euh, Cheikh Seyku Yaaya Bari ak ah, astafurlah <laughs> Seyku Yaaya Jàllo moom suñu sëriñ la moom ji nga xam ni ci jihaad la nekk jàngal nit ñi diine ak lislaam tey ji rek lañ jóg démb rek lañ jóge ci euh, pose première pierre mu institut Sakhir nee nañu 2000 étudiants lay lay yore bi ma xoolee ñi jàng alxuraan bi premier deuxième ak troisième ñëpp waa Fuuta Jalon lañu te kon nag mbokk yi euh, di wax ni li appel de Dakar di oote mooy jàmm li appel di Dakar di woote mooy unité di appel di appel de Dakar di oote mooy na borom xam-xam yi li ñuy wax monsieur monsieur Diallo na nga ñëw wàcc ci suuf ànd ak sa askan monsieur Diallo na nga wàcc ci suuf jël sa askan yóbbu ko kanam nan nga koy defee mooy nga ubbi xel yi nanga liggéey ci xel yi ci loolu lañu ñu bëggoon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu.